ixmal xalifatu Serigne Cheikh Bintou Fall xalafan mat na xalifa ci lislaam ku mel ni moom jafe na ñi ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na loolu ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax euh, Serigne di ko ñaanal suñu jàmbar ji euh, xalifa euh, Cheikh Mouhamadou ma doon jàmbar ja bàyyi Serigne Cheikh Bintou Fall ma doon yaakaar ja bu ngeen gisee fii ci pàkku sëñ Mouhamadou Abdoulahi Fall Ndar naaru maam Fatou Kobor xalifaam ki nga xamante ni ku yokkul yaa wàññi waaye ku a xam ne Serigne Cheikh liggéeyu euh, sëñ Mouhamadou Abdoulaye Fall ci biir réew ak bitim réew daayira maam bi Ndiaye bi nga xamante ni euh, moo nekk Paris ci njiital nga euh, taalibeb sëriñ bi soxna Ami Yàlla Ndiaye Euh, président association Mika soxna Amy Yalla Ndiaye euh, jëriñ daayira Suburu Salaam waaye soxna Amy Yalla Ndiaye groupe Bafi international waaye soxna Amy Yalla Ndiaye euh, paripol di soxna Amy Yalla Ndiaye Maam Jaara bu ngeen gisee soxna Amy Yalla Ndiaye muy dem jërul ngeen laajte waaye yittey maam Seeni bu Ndiaye la def mbégte ku ne xam ne ndigal lii Serigne Touba joxoon maam Cheikh Fall 1916 foofu ca Njaareem ndigal loolu ba tey mi ngi wéy waaye gàcce ngalama sunu jàmbaar ji Serigne Cheikh Bintou Fall soxna Amy Yalla Ndiaye ànd ak mboolem daayira yi nga xamante ni euh, sëriñ bi dénk na ko foofu ca euh, Paris ñu feggoog sunu baay euh, baay Malick Sarr di kenn ci soxna si sëriñ bi nga xam moo nekk ci kër gi waaye su ki suñu rakk ji sëñ Xaadim Ndiaye mi nga xamante ni mooy doomu soxna si tey jii jëfi soxna am Yàlla Ndiaye jëfi sëñ Xaadim Ndiaye dafa dugg ci biir ku ne xam ne ni soxna am Yàlla Ndiaye jàmbaar yi mu àndal ñi ngi nuyu bu baax ki nga xamante ni mooy jëwrin universel soxna Fatou Thioune ñi ngi koy siyaare bu baax Espagne moom jëfam agsi na ñi ngi koy nuyu di ko gërëm waaye ki nga xamante ni mooy soxna njole Ndiaye universel moom tamit jëwrinam euh, moom tamit euh, jëfam agsi na euh, ci liggéey bi soxna Anta Badiane Amérique moom tamit jëfam agsi na ci liggéey bi waaye nag soxna Ndey Mbuub di ndey jooru soxna moom jëfam agsi na ci liggéey ki nga xamante ni mooy jëwrin jëwrin soxna jëwrin Seydou Fall Paris moom tamit jëfam agsi na ci liggéey bi waaye ki nga xamante ni mooy sëñ Adama Badiane Amérique moom tamit jëfam agsi na ci liggéey bi aji sàmbu Paris moom tamit jëfam agsi na ci liggéey bi waaye kenn du soxna ñaañu Diop Paris moom tamit jëfam agsi na Mouhamad Darame Sénégal moom jëfam euh, agsi na ki nga xamante ni mooy jëwrin Mame Faty Diagne Sénégal jëwrin Mame Faty Diagne Sénégal moom tamit euh, jëfam agsi na jëwrin Mame Faty Diagne Sénégal ñu ngi koy gërëm bu baax waaye jëwrin Khadim Ndiaye moom tamit jëfam euh, agsi na waaye jëwrin ki nga xamante ni mooy taalibe Khadim nekk Paris nekk jàmbaari Serigne Touba moom tamit jëfam agsi na waaye soxna Koumba Cissé état yi moom tamit jëfam agsi na waaye nag euh, jëwrin ki nga xamante ni mooy universel euh, Buri Ndiaye Sénégal moom tamit jëfam agsi na mbokk yi la soxnaam yàlla di sant di ko gërëm di ko ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi ci daayira bi di jàppale soxnaam yàlla Ndiaye ci liggéey bi nga xamante ni moom lay liggéeyal euh, mam Cheikh Rahim waaye di ko liggéeyal Euh, maam Seynabou Ndiaye bu ngeen gisee soxna Amy Yàlla Ndiaye muy dem euh, jërul ngay laajte waaye yittey maam Seynabou Ndiaye la def mbégte ñi ngi ñaan liggéey bii muy liggéeyal maam Serigne Fall ci biir réew mi ak bitim réew yàlla na sunu borom yokk soxna Amy Yàlla Ndiaye social Touba ca kanam jàmbaar la ci waaye soxna Amy Yàlla daayira maam Serigne bu Ndiaye jàmbaar la ci son am yàlla Ndiaye wëlis maam Serigne Fall yi nga xamante ni Serigne Cheikh Bindu da koy jébbal sëñ am ni mudu mbenda at mu ne jàmbaar la ci waaye son am yàlla Ndiaye euh, ci waaye ku ne xam ne mboolem buntu ko Serigne Touba ak Cheikh Rafal yi yu ci bari jëfam euh, gi nga xam ne weeru koor wi nga xam ne Serigne Touba moo ko joxoon ndigal euh, maam Serigne Fall 1916 jàmbaar la ci sëñ Xaadim tey jii sa jëf ak sa jëf woy jur moom lañ boole muy soxna am Yalla Ndiaye bi nga xamante ni mooy liggéeyakonu maam Seeni bu Ndiaye waaye mooy soldaaru euh, maam Seeni bu Ndiaye maam Seeni ay Fall woon jàng baax na loo gis xam ko waaye liggéeyal sëñ Bamba loo bëgg am ko joxe moo gën julli liggéey moo gën jàng maandoo gën koor kon jàmbaar yi nga xamante ni ñoo ànd ak euh, soxna Amy Yalla euh, di ko jàppale ci liggéey bi yàlla na suñu borom yokk seen xéwal waaye di ñaanal suñu jàmbaar ji toog muy Serigne Cheikh Bintou Fall mi nga xamante ni mooy xalifa pa Serigne Mouhamadou Abdoulahi Fall Ndar naaru maam Fatou Kabar jaxula koor mooy nde yaar mu sekk waaye di moom di mbokk maam Fatou Kabar bul ko sikk sëñ mu rab laay mën naa sant waaye sëñ mu rab laay mën naa ñaanal na saayir sa mel baatin ba mel moo am doole waaye bàyyi Serigne Cheikh Bintou Fall maf sulaa gàggandikoo ak a bëri doole eh, sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu eh, di la siyaare Eh, da ngay yëkkati sa kàddu ci wàllum nasaraan eh, ñu baaxee ko mbokki taalibe yi nga xamante ni eh, ñi ngi topp site bii nga xamante ni mooy 24actu jëf ji nga xamante ni yow jëf nga ko ànd ak sa jëf waajur muy nagu xaban wu mag nga yëkkati jébbal ko sa sëriñ sa xarit muy sëriñ Cheikh Bintou Fall une mot pour français. asalaamaaleykum wa rahmatulahi. Oui, aujourd'hui encore, c'est une journée euh, exceptionnelle pour euh, le mouridisme, pour le baïfalisme et pour euh, l'islam. parce que c'est une journée où on fête les 21 jours du mois de Ramadan. C'est une journée extrêmement importante parce que c'est un moment pour se réunir euh, autour de notre sérine pour euh, préparer encore tout ce qui est Ndogu, pour pouvoir euh, subvenir aux plus nécessités, aux plus besoins. Donc là, nous venons aussi avec une noble offrande, un adia, parce que chaque adia qui est donné aux sérines, c'est un adia qui est donné directement à l'humanité. C'est euh, notre rôle en tant que Baïfal, qu'on soit de France, du Sénégal, du monde entier, de travailler pour notre série, de travailler pour le mouridisme et de travailler pour l'humanité. parce que c'est ça l'objectif d'un Baïfal, c'est de travailler pour l'humanité. Encore une fois, on remercie notre Céline Céline Sherbin Toufal qui nous guide, qui nous euh, donne la voie à suivre pour pouvoir euh, faire en sorte d'être de meilleurs pour pouvoir euh, contribuer au mieux à l'humanité, à l'ensemble de l'humanité, et pour pouvoir suivre la voie de Mamshir Ibrahim Afal et de Céline Touba, En tout cas, vraiment, je remercie Céline Khadim Madina pour Baïfal pour euh, le travail euh, incroyable qu'ils euh, font chaque jour au quotidien, que ce soit pendant la période du ramadan mais en dehors aussi, pour pouvoir appuyer la communauté, pour pouvoir aider les plus nécessiteux et aussi structurer la vie sociale et religieuse de notre cité Touba et de notre cité Touba, qu'elle soit géographique, spirituelle ou intérieure. Merci à tous, merci beaucoup. Serigne Khadim Ndiaye di doom ci soxna am yàlla Ndiaye moo jël muy Serigne Cheikh Bindou Fall mi nga xamante ni mooy xalifa sëñ Mour Ablaye waaye sëñ Xaadim mi ngi gërëm euh, Siri sa Diop di baayam di patron nekk foofu ca Njaareem di taalibib sëriñ bi sëriñ bi boole leen Euh, mu nekk fa di ko jàppale ci liggéey bi Sidi Gise Diop euh, sëñ Xaadim euh, mi ngi lay gërëm di doomi Baye Cheikh Diop daaray Padias doomi Mamba Samba Diop ca Ndar waaye nag gàcce ngalaama sunu jàmbaar ji Serigne Cheikh Bintou Fall xalafan mat na xalifa ci lislaam ku mel ni moom jafe na Serigne Cheikh faal Fall liggéeyaa konu Maam Cheikh Rahim Fall ambassadeur Maam Cheikh Rahim Fall waaye soldaaru mam Cheikh Rahim Fall Serigne Cheikh Bintou di dund ak Baye Fallam ci biir réew mi waaye di dund di dund ak Baye Fallam ci biti réew mi Baye Malick bii ngeen gis daayira Maam Seeni bu Njaay bi nekk Paris groupe Baye Fall international daayira Salaam association Mika ñoom ñoo ko jébbal euh, Serigne Cheikh euh, Bintou Fall euh, mi nga xamante ni mooy xalifa sëñ Mourou Abdoulaye Fall Ndar mu toll ci deux cent cinquante mille francs CFA boole kook nag wii nga xamante ni ki nga xamante ni mooy sëñ Xaadim moo ko jébbal sëriñam baayam xaritam muy Serigne Cheikh Bintou Fall di xalifa sëñ Mourou Abdoulaye Fall Ndar bu demee ba ci kanamu Serigne bi Baye Malick mooy wax ci turu daayira bi kàddu yi nga xamante ni son ami la yónnee na ko ak Serigne mu baax mi nga xamante ni di jàmbaar di jàppale association mii Paris Pôle 10 groupe Baye international international daayira Maam Serigne Ndiaye soxna saa saang lay gërëm Europe boo fa nekkee di liggéey da ngay amul suut ba noppi rawale euh, sëngëm sans masque gi bu nekk Europe koo ci woo ci liggéey Sëñ Tuubaa lu muy wax wut xaalis moo nu yóbbu ci dëkk bi sama góor ga ne wut xaalis ku mu yóbbu ci ab dëkk di nga wut ba sonn doo am dara da ngay amul suut ba noppi rawale sëngëm ndigal li Sëñ Tuubaa joxoon Maam Serigne Fall 1916 euh, waaye gàcce ngalaama sunu jàmbaar ji Seymour Abdoulahi waaye gàcce ngalaama euh, Serigne Cheikh Bintou Fall kon dañuy dem euh, jébbal euh, Serigne bi liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh liggéey bi nga xam ni soxna Amy Diallo Ndiaye moo la koy liggéeyal ci àll bi bokk koo kii nit nag yoo xam ni dañoo fasante ko ñoom ñëpp nag di ay bi waaye mu di leen sant sant koo xam ni bu la ko santee ngirub liggéey muy poroxaan wala muy kër gi di kër di kër di di kër gi ci yëpp waaye nag mu fab lii def ko wàllam def ko ab liggéeyam nga xam ni yaa ko digal muy liggéey fa France nga mu nekk maam Seydou bu Ndiaye bisub maam Seydou bu Ndiaye di fa liggéey ànd ak sëriñ Cheikh Khady Guèye Fall sa taalibe sa rakk ca ca koor ga waaye wali su maam seex Ibrahima Fall itam nga digal ko mu di ko jëf ñu di ko yót maam Cheikh Fall tam lu yàgg ci kër gi waaye moom itam mu bëgg góor góorlu nag bëgg a dolli ci liggéey boobu ak góorgóorloom su weer koor jotatee mu togg ndab lu baax noonu la ko waxe woon noonu la ko diggee woon mu togg ndab lu baax ni ko ñëpp di defe mu jéem ca la mu man dikk fekk la fii yëkkati ko ko teg ci sa loxo nu ànd ak euh, xaadim madina bi ak sëriñ mi nekk ci biir këram ga ak nu ñii di seen magum yoon nga xam ne dafa façon yéene togg andi yàlla dogal mu nekk fa ne mu ne li ma daan def de du ma ci bàyyi dara ndax maa ko waxoon fa njaarim la ko waxoon daaw loolee nag moo waral mu yëkkati lii mu di ab lim nu ànd ak sëñ xaadim mii nag tey yàlla def ci seere ndax sëñ xaadim lii mu andi liggéeyu boppam la waaye nag dafa leen ànd nag liggéeyu waajuram bu jigéen loola lépp nag faal yow a ndax ñoom ci seen digal donc ci la ñuy wéy ci la ñuy dox ci suba ngoon guddi ak bëccëg looloo waral mu ni nag naa ànd ak ñoom ñi dikk fi sa kanam yëkkati seen liggéey bi jox la ko lii nag day liggéeyu mbooloo boo xam ne ñi mu ko bokkal ñi nekk Italie ñii nekk Espagne fenn fu ne nit nekk fa barkeb Cheikh la fenn fu ne nit nekk fa mooy tax sax suñu koy liggéey ñooñu itam doonu soññe ci ñoom li ñuy wax di laaj lu man di ko def fu ñu xam loolu loolay waral suñu ñëwee bi sa kanam ñu di la ko leeral mbaa ji di ko leeral keneen ku ko yàlla def nga fekkee jotaay bii rek ñoo ngi jéggalu nag suñu wax ji ñuy yëkkati ba mu kawee nii ci ah, bëgg liggéey bi dox rek la faal jaga yaaram la bu baax tey ñaan yàlla ak mu doole la yàggal la defe naa sëñ xaalim mii itam nga wax ngi nii nga jàkkaarloo ah, lii itam soxna si moo ko liggéey ànd ko ñooñu waaw mooy nag we sëñ xaalim mii jërëjëf bi nga xam ne la sa waajur wi jëf nekk ca Paris di jëf waaye da ni kat dama ciy dugal sama jëf jël jëf juree ji sëf ko ci oto ànd ak sëñ xaadim Madina mi nga xam ni télévision yëpp xam nañ ko muy def plateau yu am solo waaye ak bëggam di maam Cheikh Ibra Fall jërëjëf sëñ xaadim yàlla na nga fi yàgg andi yàgg fee fekk sëriñ bi Baye Malick jëf yow seere nga ci magum taalibe nga ci kër gi bi nga nekk ak sëñ bi ñëpp gis sa taxawaay bu rafet waaye bi sëñ bi ñibbee àjjanaat njaboot gi nii nga ànd ak ñoom ak taalibe rek yàlla na nga fi yàgg ñëw yàgg fee fekk sëriñ bi sëñ bi bég na lool. sëriñ Xadim euh, sëriñ Cheikh Bintou Fall Saliou il de votre Je vous remercie du travail que vous avez fait. Il dit que qui est symbolisé par un bœuf et vous avez amené ici par rapport au préparatif du ndogu, il vous en remercie vraiment. C'est un que vous avez faire au niveau de la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Et cela va faire des travaux qu'on prépare ici pour l'amener au niveau du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Donc, à travers cet acte, il vous remercie infiniment. ce que vous avez fait. Il peut dire que cet acte-là, le bœuf dont vous avez acheté, est le premier bœuf que vous avez acheté pour Serigne Touba, mais aussi pour Mame Cheikh Ibrahima Fall. De ce fait, tous les autres bœufs que vous achèterez donc seront la suite mais le premier que vous avez acheté c'est ce bœuf que vous avez donné aujourd'hui euh, pourquoi il vous a dit d'acheter un bœuf parce que c'est lui qui vous a donné l'ordre d'acheter ce bœuf là vraiment vous avez bien fait ce qu'il a dit son objectif en est c'est uniquement pour réserver quelque chose de l'au-delà et d'ici quelque chose qui va qui vient de Mame Cheikh Ibrahima Fall et qui va aller au niveau de votre personne et cela aussi vient de Serigne Touba et vient de vous C'est ainsi qu'il vous remercie infiniment. Et il vous remercie. Et il prie pour que le travail que vous avez commencé dans votre vie, là vous voulez aller, que le bon Dieu vous et que tu, vas réussir cette mission-là. Il vous confie Mamsia Ibrahim Fall. Et à chaque fois, là où vous allez, vous serez accompagné avec Mame Cheikh Ibrahima Fall. Il n'oublie pas votre maman, Sokhna Ami Yalla Diop Ndiaye. Parce que ça, c'est lui qui vous a montré le chemin. C'est elle aussi qui vous a enseigné ça. C'est elle qui vous a montré le bon chemin. C'est ainsi que tu, vous voulez faire cet acte-là. Ainsi, elle, la remercie infiniment. Et elle souhaite pour que le bon Dieu lui donne une longue vie. Parce que peut elle peut s'arrêter à, à travers les actes qu'elle fait au niveau de la France. Mais par rapport à son dévouement, C'est ainsi qu'elle vous a expliqué le chemin. Et après avoir vu le bon chemin, et vous allez, vous le bon chemin. Et vous, vous, prenez le chemin aussi avec elle. Donc, il vous remercie infiniment. Et il la remercie aussi, votre mère. Parce que avant ça, Euh, votre maman vous a demandé, est-ce que vous voulez faire votre allégation Et vous l'avez répondu oui. Et il, elle, elle vous demande, est-ce que vous voulez être mouride Et vous l'avez répondu oui. Et elle vous demande aussi, est-ce que vous voulez être baïfal Et vous l'avez répondu oui. Elle vous demande aussi, est-ce que vous voulez que Serigne Cheikh Bintou sera votre guide et vous l'avez répondu oui. Et depuis que vous avez oui jusqu'à présent, il ne voit que votre dévouement. Ainsi, il prie. Parce qu'il sait uniquement c'est Cheikh Ibrahima Fall qui dans votre cœur. Donc il prie pour que le bon Dieu vous protège et vous finissez tous vos la finir. Merci beaucoup jërëjëf. ndax liggéey bi day ñaari liggéey. looloo tax ma ko doon teqantal. te di ko leeral. waaye lépp day delluwaat ci moom rek. ndax kër Cheikh Ibra. day kërug jëf. sampe wuñ ko ay wax jëf rekk lañ ko sampe ba tax na nit bu jëfee doomam jëf lépp daje fi muy jenn jëf ji wa dafa mel ni war naa koo leeral lu ci nekk war naa koo leeral soxna ami noo koy sant bu baax ci liggéey bii mu fi andi jaar jaar jaar ñu ngi ko ànd ak sëriñ mu ànd koog sëriñ Malick mi. ak ñi mu seqal liggéey bi. mu seqal liggéey bi. muy jëwriñu maam Seynabou Ndiaye. muy jëwriñu ca France. ak ak bi. sëriñ bi nee noo ngi leen di sant bu baax. ci liggéey bii nga xam ni moom la fi soxna Ami Yàlla indi muy hàddiya ji sëñ Malick nee na mi ngi toll ci juróom fukki junni mu def ko ndoguy maam Cheikh Ibrahima Fall kon nag mboolem koo xam ne soxna saa ngi lay ci liggéey bi. kon mboolem koo xam ne soxna si mi ngi lay soññ ci liggéey bi. sa jëf agsi na fi. ba nga ko joxee sa jëf. ngir liggéey bi. agsi na. maa ngi leen ciy sant bu baax. te di leen jaajëfal. te di leen ñaanal bu baax. barke maam Cheikh Ibra. ak Serigne Modou Ablaye. ndax liggéeyu Serigne Touba day ku la ci soññ kooka ku la bëgg la ndax loo xam ne bu àggee ci Serigne Touba foofa la jëf di rawe ku sañoon ku nekk sa jëf dugg fa ku la dimbali ba sa jëf dugg fa nag kooka mat naa sant kon ñoom day soxna saa ngi leen di dimbale waaye ñoom it war nañ koo sant bu baax di leen xamal ni jëfam agsi na fii may feddli wali su maam Cheikh Ibrahima Fall woowu nga xam ne lu jëm ci màggal gi ci lañ koy jébbali kon loolu maa ngi koy fàttaliwaat ak ñi mu seqal liggéey bi yépp maa ngi leen koy fàttali te di leen sant bu baax ndax daaw kët bañ ko jébbale sëñ Amdi Moodu Mbenn xoolam sedd na lool kon noo ngi ñaan luñ ci amoon luñ ci mënoon daaw yàlla na gën a yokk barke maam Cheikh Ibra bi ci dolli ko it noo ngi koy sant ci taxawaay ca foofa ci ndogu yooya nga xam ni Serigne Cheikh Fall Khady Gueye moom sëriñ Modou Ablaye Fall da koy togg foofee ca Paris di koy yóbbu ca ñaari kër sëriñ Touba ya nekk France Aulnay ak Kaffrine ak Kaffrine ndogu yooyee xam na ne fii ak France bokkun aw dundin du fu la nga taal du fu la neex nga togge waaye jafe-jafe amoon na ci togg gi lool ndax barab yi ko war a defee sëriñ bi sax amoon na saal waaye su fekkee ndog yoo xam ne Touba gii nga ko war a jébbalee di ko togge Dakar day ami jafe-jafe waaye soxna ami yombalal na ko sëriñ bi lool ndaxte Covid ba. dañ ne bu kenn togg. bu kenn dajaloo. këram la ko ubbi loon. ni ko dee ko fi toggee. ba pare yemut ci loola. mu jiite liggéey ba. ren jiit. noonu la ko defee waat. ubbil ko kër ga. nee ko dafa togge ndogu sëñ Modou Ablaye. ak ndogu maam Cheikh Rafaal yi. yëmut ca loolu mu àndaat ak moom ca togg ya kon nag loolu ñu ngi ko ci sant bu baax moo njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ci turu sëñ am di Modou Mbenda ak turu njabootu Cheikh Modou Ablaye Fall gépp ak turu Cheikh Mamadou Mountakha kon nag sëriñ bi nee na sant nañ ko bu baax ci loolu nuy feddliwaat rek muy jëwrinu maam Seynabou Ndiaye jooju ñoo ngi koy gën a feddliwaat bu baax mu gën a taxaw bu baax ak mboolem ñi mu àndal jërë ngeen jëf jërë jëf waa jërë ngeen jëf mbokki topp ci biir réew mi ak bitim réew lii lañ ñëwoon fii ci kër sëñ Mouhamadou euh, Abdoulaye Fall Ndar ñëw dañ leen koo dégtal mooy siyaar bi nga xamante ni daayira maam Serigne Ndiaye bi nga xamante ni soxna am yàlla Ndiaye président association Mika jëwriñ daayira moom Subulu Ndiaye jëwriñ na daayira Subulu Salaam soxna am yàlla Ndiaye euh, Paris Paul li soxna am yàlla Ndiaye groupe Baye Fall international moo ñëwoon doon jébbale addiyee koor gi ci sëriñam euh, sëriñ Cheikh Bintou Fall waaye sëriñ bi gërëm na képp koo xamante ni ànd nga ak son am yàlla di ko jàppale ci liggéey bi waaye doom ju baax ji sëñ Xaadim Njaay jébbal na sëriñ bi nagu xaboonu mag ñi ngi ñaan sëñ Xaadim bu déwénee yàlla na yokk lool ci barke sëñ Touba doole maam Cheikh Rahim Fall sëriñ Cheikh Bintou Fall yàlla suñu borom yàggal ko waaye yàggal soon am yàlla Njaay te liggéey bii muy liggéeyal maam Cheikh Rahim Fall ni ko sëriñ bi waxee ndog yi foofu ca Paris kër soxna am yàlla Njaay la sëñ ci xari di toggee ndogu yi di ko yónnoo foofu di ko yóbbu Kër Sëñ Tuubaa gi nekk Olni ak Kër Sëñ Tuubaa gi nekk waaye gàcce ngalaama euh, soxna Amy Yalla Ndiaye ci boole googu Serigne bi boole ko Serigne ci Khady euh, foofu ca Paris ñu liggéey Sëñ waaye ñu liggéeyal maam Cheikh Ibra Fall yàlla na borom yokk seen i ndax maam Cheikh Ibra moo ne ko sama ndog yi fu mu àgg sama kër yi fu mu àgg sama ndog yi dina fa àgg kon ndog yi ma nga ca Paris waaye gàcce ngalaama Serigne Cheikh Khady waaye gàcce ngalaama euh, soxna Amy Yalla Ndiaye jëwriñ daayira maam Seynabou Ndiaye Serigne Mbaye allahumma salli wa sallim wa barik jërë ngeen jëf